زمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن الذي جعل صلاة الجمعة المبارك لما بينهما وزيادة ثلاثة أيام وهي في حق الفقراء والمساكين بمنزلة حد المنزل الحرام وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه له ولا نذير له ليس كمثله شيء محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله الأمة أصلي وأسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد مسلمين كلام صدق الله ñi nga xam ne ci mbaaxam may nañu fet bu ma ñu Tabaski islam am na ay fet yu bëree ci gën a mag mooy mu nekk fet boo xam ne ñoom sallallahu alayhi wa sallam leeral na ci ñoom bu jël xaram ray ko te yàlla tax lu may yàpp bi ak deret bi ak koy def ci PC penc bi PC jamono mu feesal ko. nabi sallallahu alayhi wa sallam wax nga yi soxlawul deret soxla mooy ñi am taxawaay taxawaay bi mooy lan mooy ne yàlla digal na la dara yaa koy appliqué yàlla wax na la rayal nga rey. wax na la jaamul yàlla nga jaamul yàlla yàlla ne kontaan naa ci sama jaam yi parce que li ma leen teg effectivement négligé wuñu ah li ma li waa bi ma leen teg bi mu jotee ñoom ñëpp appliqué nañ ko yàlla ñu naan sama jaam yi xool naa leen bët yéen